à cette assistance. Souhaiter aussi la bienvenue aux autorités qui sont venues répondre à cette belle organisation qui est le forum qui sera accompagné du Bénin cette année à Kaffi. Monsieur le commande, tous réunis en un seul homme, sont aujourd'hui honorés par cette activité. Cette activité qui est inscrite donc dans la logique nationale des choses, instituée par le président de la République du Sénégal, que votre ministère porte en sa tâche, qui a fait le tour du Sénégal, aujourd'hui, en plus cette belle rencontre. C'est un honneur pour nous, Monsieur le ministre maire, de vous remercier. Remercier donc euh, l'État du Sénégal, mais remercier le président de la République sur l'accompagnement de cette belle initiative qui a fait couronner, qui a fait le tour du Sénégal et aujourd'hui Kaffrine gagné la Nous nous souhaitons un bon succès parce que votre succès est le succès de tout le mouvement. Votre succès, votre réussite est le souhait tous les autorités qui sont sur place. donc de votre diligence en choisissant donc Kaffrine aujourd'hui comme berceau de la propreté. Berceau de cette propreté, Addis Ababa nous dit du Sénégal qui a été donc le document de votre politique. C'est pour cela présentation boo xam ne wax na li ñu jot a def ci biir région de Kaffrine su ko dama ci yokk juste rek ay quelques omissions yoo xam ne noté nañ ne bokk na ci li nga xam ne jëf nañ ko fii ci région de Kaffrine te xëy na limu ko ak instruction yi ñu ministre jox dernièrement pour ñu intégrer yenn département yi ci biir liggéey bi nga xam ne mooy cadre de vie fii ci biir région de Kaffrine am na études yu ñu jot a def ci fi nga xamante ni mooy Malem Hodar ak Mbirkilaan yoo xamante ni sur instruction du ministre yónnee neen fa équipe équipe bu DPIEF dem neen fa def neen études def neen levée topographique yi war ba proposer ay plan yoo xamante ni dinañ ko soumettre ministre pour mu jéem xool naka lañu ñu ciy jàppalee pour ñu mun leen ko réaliser dans les plus brefs délais bokk na aussi ci li nga xam ne ñu ngi koy réaliser mu ngi en cours la devanture du stade de Koungheul donc moom it am na plan d'aménagement yi nga xam ne ñu ngi ko fay def mu ngi en cours jotagul a noppi devanture aussi maison citoyenne bu Koungheul loolu liggéeyoon nañ ko ba pare donc bokk na aussi ci réalisation wu ministère mais dañuy citer aussi li nga xamante ni tey mooy place de l'indépendance su Kaffrine bi nga xamante ni mu ngi en cours gaa ci début bi amoon na ay rëq-rëq yu ndaw parce que entreprise bi nga xam ne moom leen jëkkoon contracté pour mu def liggéey bi dafa amoon ay difficultés yu ko permettre bu ko woon yeggale mais par la suite ci jàppale ministre jot nañoo am keneen koo xam ne tey mu ngi liggéey liggéey bi te defe naa ne gis ngeen ne liggéey bi am na jéego yu am solo yoo xam ne jot na ko ci def donc di wax rek ne sous l' impulsion du ministre defe naa ne région de Kaffrine tey desul ginnaaw ci programme cadre de vie dinañ jéem a xool naka la ñuy gën a ñoŋalee gën a yeggali li nga xam ne surtout sumb neen ko ci biir at bi ñu mun ko yeggali donc engagement bi ñuy jël mooy fexe yeggali aménagement yi nekk en cours ci biir région de Kaffrine te nga xamante ni ci suñu wàll la ñu jël engagement jeexal ko ci lu mu gën a gaawe donc maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di rafetlu bu baax a baax a baax initiative bi di féliciter ministre ci initiative bu rafet bi merci. Son moo tax moom rek la ñuy déglu tey lu mu wax loolu la lu mu ne du noonu noonu la fu mu doxoon foofu la ku mu ne kii la ñu ànd ak moom à cent pour cent monsieur le ministre damay ñëw ci réalisation yi ndax man aussi dama yore département muy département de Kaffrine de Koungheul te suñu maire yëpp ñu ngi nii toog ñu lay féliciter ci Kaffrine li fi am yëpp dëgg la yow yaay maire bi waaye yow lañu am ci ministre de la république à part Aliou Sow dañoo bëgg nag suñu département de Koungheul bi nga dimbale ñu ci Koungheul amul infrastructure chef de service yëpp amul y a le CRD qui est là le CDD dëkk yëpp dañ ko loué amuñ asi ay yoon tey xëy na du bés boo xam ne bii sax war nañ wax yenn yi waaye comme yaa ngi toog danañ la ko wax bëgg nañ nga jàppale ñu Koungheul di wax ne au niveau du conseil départemental dañoo jël suñu budget bi nga xam ne investissement la a cent pour cent dañoo amoon problème au niveau de l' éducation bu tabaxee ko boobu lycée comme cadre de vie mi ngi fi ñoom ñëpp mi ngi ci dañ bëggoon ñu dimbali ñu ci lycée boobu defal ñu aménagement extérieur muy ay banc ay plantation d' tout aménagement te naa ne Aliou Badara li maa ko doon wax démb sax ne dama laa soxla pour loolu la woon di bëgg di wax ji wax ji jarul guddal parce que liñ waroon a ñëw ñëpp wax nañ ko. benn question rek laa bëggoon a posé waat muy ñaar dama si gis la direction générale des constructions et des bâtiments et du public son directeur technique toog ma doon laaj ñoom lan lañ mën a def ci cent mille logements yi. parce que day direction boo xam ne man piloté naa ko pendant xam naa ne am nañ expérience xam naa ne am nañ ay techniciens ay ingénieurs yoo xam ne mën lañ leen cee moo ma bëggoon nag nga boole leen ci cent mille logements yi pour ñu mën cee liggéey di wax ne nag pour ce qui est de la dafa am yoo xam ne dama ko gis ma bañ mu am fii au niveau de par exemple y a des logements de la SSHLM qui sont construits construite et qui ne sont pas occupées ba léegi kenn jëlu kon nag loolu bu mu fi am donc loolu monsieur le ministre da sama contribution ci constitution yi maa ngi leen di gërëm di leen sant wa salaam. nous comité la ñu nekk commune mais loolu ñu ngi defar ay plans urbains promis nañ ko pare mu nekk finalisé ko rek may wax def genre de nouvelle accéléré loolu finaliser plan de lotissement yi. jóg na commune bi ëpp deux mille cinq cent habitants yëpp ñu terminé ko sans délai finaliser les travaux d'aménagement de la ZAC ¿eh? de cap de cinq hectares devant abriter le site de recasement des mécaniciens mécaniciens yi ñu war a rek ñu finaliser ko foofu itam seen lekk waxtaan ak ñoom ba danañ indi courant bi foofu itam su alal dëkk bi dem naa ci ministère de l'artisanat nangu na ko jël en charge dana fay pour courant bi mën a ci mairie bi fay ndox mi démarrer les travaux d'aménagement de la ZAC de Kaffrine de 71 hectares boobu dossier catastrophe bi lance euh, ñu mu ci am ñu ngi koy ñu ngi koy defar réaliser le pôle urbain de 6 kilos le décret ba nga xam ne président de la République war na ko ci def ko décret d'utilité publique bu euh, euh, pôle urbain de 6 kilos ci ay semaines yu néew président dina ko boo jógee ak si loolu xam officiellement mu nekk décret am décret de public ñu finalité projet d'investissement TER bu 71 bu nekk Godiba Godiba deux extension may wax ni la maire de Godiba aussi bëggoon na jël parole mais avec gerte maire de Godiba mooy directeur de l'habitat social mooy El Hadj Aliou Diané tey nii bu superficie de 65 hectares bu nga xam ni war na nekk aussi ci kayit ñuy laaj maire yëpp ñu convoqué seen conseil municipal yi pour finaliser seen PDI sur modernisation des villes religieuses juma wu Kaffrine bi dañ ko àggali ak ñaari weer maximum coor parce que fii da ngeen wax rek finaliser amul délai man maa ci yokk ñaari weer maximum finaliser la réhabilitation la mosquée mouride e la reconstruction des mosquées de Mbabo et de Koungheul Koungheul man maa fa engagé lu nga xam ne ci président de la République laa ko jëlee du ci ministère de la République moo fay la mosquée bi nga xam ne moom mooy moom lay am comme ni ñu ko defee ci église u église u Kaffrine finaliser les travaux de la mosquée de Baron Baron man maa fa dem guddi ci jumaa a quatre ans ma àgg ay minuit imaamu dëkk bi ak chef de village bi ne ma lii rek moo ñu ko defal coor bu ngeen ma defalee boobu rek boobu jëm moom ma sant yàlla bu baax a baax parce que guddi laa ba ñëw tey ba tey defuñ ko dara yow aussi monsieur le wàllu maire ba may piis rek bi ma fa demee itam jël naa engagement ci jumaa bi monsieur le wàllu ñu xool ñu ko mën a defee les places de l' indépendance de Niili de Mabo de Diokoul les archevêques santelé maintenant ah. ak boñe jumaa bu boñe boñe poste de santé poste de santé moom waxoon naa ko ministre de la santé bon loolu sujet war a sax mais place ñii bi bi ah, ngeen waxtaan ko si pour nangu surface si ngeen war a arrêté yéen ñaar kon hmm. naa ne jubóo ngeen programme logement construction bon Moussa Sarr me signale que le marché de l'IRTSS de Kaffrine marché bi ñu ngi koy lancé semaine prochaine waaye am na fi Moussa Sarr xam nga askan bi ñoom xamuñu marché démarré bu ñu waxee marché mu Dakar 6 mois ñu ne fii somm na fii loolu moo tax may bañ parce que dañuy dem élection après dara du commencé ñu ne Abdoulaye Sow somm na ko moo tax man lii ah marché moomu di nga xaar waa alors programme bu logement construction 300 logements dans le cadre du projet cent mille logements donc doléance du gouverneur réglé nañu deux cent soixante quinze dañ ko yóbbu ba trois cent Malem au lieu de vingt cinq mu dem cinquante viabiliser l'assiette de cent hectares à Kay affecté à la coopérative Kopi mais coopérative boobu tamit il faut que les problèmes préalables soient réglés y a quand même des problèmes il faut pas aussi m'engager dans ça y a beaucoup de problèmes restera pour les problèmes administratifs là, il faut qu'on les règle. Moi, des choses après qui vont suivre. Euh, Tant, mais je veux qu'on m'assure de la régularité. dama bëgg ngeen ma ci parce que maa ngi jot ay lettres yu bëri sur ça te man lettre bi ñu ma bind dama am na y' a beaucoup de démarrer l'aménagement de 7 hectares pour le compte de la SNHM dans le cadre de logement dans un délai de 1 mois. Démarrer le propulage des futurs accueils du, euh, du projet sans de logement en rapport avec M. le gouverneur. Ak abattoir lu Kaffrine aussi avec Macbeth ñu ko ñu tabax mais loolu dama nekk rek agence d'exécution loolu rek lañ fa nekk en fait ça ça ça dépend du ministère de l'élevage programme cadre de vie Mass Thiam ak de dañuy engagé pour huit PRN d'ici août dont trois dans la commune de Kaffrine et cinq pour le reste de la région renforcer le dispositif de collecte et de nettoiement vraiment je dois me féliciter du qui a été par la SONAGED et le cadre de vie dans le cadre de la propreté le dispositif de collecte dans les zones non encore couvertes mettre en place une de veille et de sensibilisation tenue yi moom Ami Ndiaye wax na ko mais Abou a réglé ça effectivement suñu entrée de ville yi ba ñu mën koo def aussi achevé ko à Kaffrine entamé ce qu'on avait programmé à Koungheul et sur la route de Tambacounda élaboration de nouveaux schémas d'organisation territorialisée buy commencé région département ak unité communale mise en place d'un dispositif de mobilier urbain PRL ak ay pàcc yooyu mooy li nga xam ni mobilier bi ñu am dañ koy def ci mbedd yi pour mën a gérer mbalit mi renforcer le dispositif de collecte et de nettoiement ndaw ñi benn envergure tricycle dañu yokk benn yi yokk moto yi yokk pelle mécanique yi yokk aussi camion yi ba nga xam ne ci région bi yëpp ñu mën fa àgg ci anam yu rafet sur l' aménagement ñu terminer aménagement ñu nga xam ne tàmbali nañ ko dans les de Kaffrine et de Koungheul ñu achevé l'aménagement de la devanture du poste santé de Koungheul aménagement bu bees place publique bu bees buy am Malem Hodar ak Birkelane travaux d'électrification de l'entrée de ville Abou Nenam avant le 15 juillet lamp yi euh, et au plus tard en début août ñu rendre fonctionnel l'entrée de la ville aménagement aussi de l'extérieur de la de, du lycée de Koungheul sur le promogène, le directeur s'est engagé à faire organiser en relation avec le gouverneur un CRT d'information et de lancement du promogène dans la région le 1er août. loolu gouverneur dina ci dina ci veillé mesures fi jël yëpp nag man a gouverneur ak préfet yi ak sous-préfet yi ñooy veillé à leur exécution mais tamit am cadre de bord gouverneur bu fekkee ne am na lu ci yéex moom dina ma bind ah ministre lii de ci forum bi engagé woon nañ ko. waaye dara amu moo tax ma bëgg nga gën aussi surveiller ci en relation avec le directeur de cabinet ñu mën a surveiller tous les engagements ñu ciy jël respecter délai yi respecter aussi li ñu wax en tout cas am naa kontaan ci parce que mënoon naa am gàcce ci organisation gis naa ne ci organisation bi région yi ma jaar yëpp Kaffrine a dàqal ci organisation ci mobilisation Kaffrine moo dàq ci tënku ci tënku forum Kaffrine moo dàqale gouverneur maa ngi lay félicité ci réalisation Kaffrine moo dàqale alors vraiment am naa mbégte am naa kontaante am na lu nga xam ne dañuy jàpp ni man la non parfois ce sont mes directeurs généraux def lu nga xam ne jàpp nañu lii suñu ko defee dañ ma jàppale loolu tamit ci collaboration la bokk parce que tey ñoo fi nekk suba mën nañu séparé ku nekk def leneen mais fu ñu mën a gisee dafa war a rafet lu muy rafetee mooy collaboration bu France collaboration bu loyale am naa changement ci ministère bi ma président Macky Sall jiite directeur yi fa nekk yépp ñi teew fii nag ak ñi teewul parce que am nañu teewul autorisation lañu am euh, ngant lañu am directeur SICAP ngant la am directeur SNHLM euh, dafa xaw a tawat directeur général de l'urbanisme muy Abdoulaye Diouf man maa ko wax bu ñëw